comme li nga laaj noonu tontu bi mooy na lii mooy garabu suddeem moom fukki garab ak ñeent euh, lañ ciy ut après da ñu topp di nga gis nañ koy utee moom li muy laaj rek euh, mooy euh, parce que dawul da nga ñëw rek nga dagg dafay laaj ngay euh, jënd suukar bu bari ak ndox suukar ak ndox moom nga koy nuyoo dafa xel mu dafa am suukar tuuti suukar nga koy nuyoo ak ndox am loo wax ak moom déglu ko su ko defee mu jox la ndigal su ko defee nga sotti ko suukar bi jël ndox sotti nga gor nag boo xasee ba pare jël meew ana meew bi boo xasee ba pare fi nga ko gaañ meew ngay jël nga fajee ko ko su ko defee nag am ndigal ci li nga jël moom garab la boo xamante ni euh, kéemtaan la damay wax toujours ne garab gi ku ma ko jox nga jëfandikoo ko ni ñu la ko waxee boo gisatu résultat bi ñu lay wax ci wërsëg porte ma fu la neex salaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, comme li ma laaj si garab bi mooy bàpp moom macha allah daanaka weer bu nekk nañ ko fi ut si parce que moom jërëjëm tim comme ni ma ko waxee rek ku bëgg siw ku bëgg looy jaay mu jar ku bëgg nit ñi topp la muy góor muy jigéen muy kilifa yi topp la bëgg la looy jaay mu jar loo yuutu jot si bii mooy garabam cent cinquante huit xob lañ ci soxla pare def ko. bind ci xob bu nekk ay alxuraan def ko sunguf am luñ ko booleet nga di ko suuroo macha allah kéemtaan la moom it boo ñëwee il faut nga jënd ko bisimilah ana xale bi mën na yegg thank you